jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou kay dégguma dara de jërëjëfaat Serigne Saliou waa daara ji ñëpp ànd kook man ba tax ne sant naa bu baax moo monopole kaddu kaddu kaddu waaye tuub naa ko waaw kaddu yu bëri sax tuub naa ko waaye léeg-léeg rek laay waxe waxu ku sopp ab sëriñam rek laay waxee waxu taalibe rek laay waxe ndax man de ma xam war nañ xam nañ ni waruma def leneen lu dul topp bëgg-bëggu sëñ su ma ko defee du ma gor leneen bu ma ko toppee lu dul bëgg-bëggu sëñ Béthio du ma gor ndax sëñ Béthio damaa dimbali kuy jaay pànk pànk pànk lu ba yegg si ci man di nga xam ne maa la gën a pànk fukki junni yoon waaye loolu taxumaa jóg ak taalibe rek ma tax a jóg kon sant naa bu baax sëriñ bi duma fi nekk di jox kàddu gi waa daara ji yéen ñëpp seen kàddu jël naa ko dugal ko ci sama kàddu di tuubal sëriñ bi ci kàddu yu gudd yi